tey ji wutali euh, Paris moom nag dafa fas yéene euh, teewe ci ab ndaje moo xam ne euh, Union africaine ak kuréel gi di Gavi moom moo ko fa daal di invité ñu fas yéene waxtaanee li ñeel wàllu vaccin jamono joo nga xam ne daanaka mbirum vaccin amal na solo continent bu Afrique rawatina Sénégal nga xam ne am na ay bërëb yu ñuy defaree vaccin ñu fas yéene nag bu noppee ci boobu lépp ndaje moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye amal. ab ndaje moo xam ne dina dina ko sekk ak Emmanuel euh, Macron bokk itam ci ponk yu ñu fas yéene waxtaane mooy wàllu kaarange ci diggante euh, ñaari réew yi muy France ak Sénégal des nañu waxtaane itam wàllu njëgu dund gu cher gi fii ci euh, Sénégal ab kuréel goo xam ne nag dafay euh, dajale ay artisans naka noonu ay commerçant fii ci Sénégal ñoom ñoo xëy nag euh, daal di sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi ngir ñu fexe rek ba ñu daal di suqali li nga xam ne moom mooy gafaga ak askan wi su ko defee seen dund gën a mucc ay ponk yi mën a gën a fës mbokk yi yaatal gi léegi léegi lay doon. te dafa leen bu baax a baax ci télé bi ànd bekk 7TV tàmbale ko ak xibaar gi ñi ci réew mi ak soxnaam daal nañu yebbu ci roplaanu tili France ni ki tey jilee moom Bassirou Diomaye Faye ñu daal di ko fay o ginnaaw waxtaan woo xam ne da ko fas yéene daal di euh, teewee mu ñeel wàllum ñàkk mi Afrique naka la def moom seen bopp ci wàll woowee waaye itam di coppite ñoŋal ko nekk na loo xam ne itam solo su rëy la ci googee waxtaan nga xam ne Union africaine moo ko lëkkaloog Gavi dal di koy nag amal jàppe nag loole dina gën a tax ba ñu sukkandiku ci wàll woowu mbébét bi mooy fexe rek ba ci wàllu vaccin ñu daal di euh, moom sunu euh, bopp rawatina Sénégal fii nga xam ne ca jam ñaajo am na bërëb yoo ñu fa jagleel defarum euh, lii di vaccin Institut Pasteur itam fas yéene rek defar ay vaccin yoo xam ne njëg la dina gën a yéem a may ndaje moom yi nga xam ne nag dina dox ci diggante ñaari njiitu réew yi muy bu Sénégal ak bu France dañu ci ab déjeuner boo xam ne dañu ko amal dina waxtaane itam moom Bassirou Diomaye fay ak Emmanuel Macron li ñeel euh, lëkkaloo bi dox diggante France ak Sénégal ci wàllu euh, karange ak euh, soldats yi nga xam ne ñu ngi mbébét ngir daanaka xool nu ñu leen di jëlee ci réew mi daanaka loole yëpp dina ci bokk itam wàllu franc fa bi ñu namm soppi loole itam dina bokk ci waxtaan wi. addu ci lëkkaloo gi nga xam ne ni France def na ko ci ay réew yu tënku ci Afrique sowu jant jàppale ne nag la mu fas yéene def rek moo di wàññi bu baax li mu soldaaro bi nga xam ne yónnee ne leen fii bëgg ko rek xayma ci rek juróom benn téeméer ci yooyu réew boo la ngeen jàppee nag fii ci Sénégal li mu euh, soldaaru français yi mu ngi toll ci ñetti téeméer ak euh, juróom fukk mbébét bi mooy fexe rek ba ñu wàññi ko ba ñu toll ci juróom fukk euh, képp loolee dina doon ponk ba ñu nar a waxtaanee diggante njiitu réewum Sénégal ak bu France lii nga xam ne itam moom moo ñeel déggoo yi dox ci diggante larme bi loole yëpp dafa nekk lu ñu nar a waxtaanee ñu ànd ceeg Awa Diallo bu ñu noppee si opération yi nga xam ne moom la ñu fas yéene amal si dendu Afrique réew France bëgg ko tàmbali ay soldaawam seen lim dina wàññeeku lool. yëfi natt nañ ko sax si juróom benni téeméer côte ci Afrique sow jant ak si xolu Afrique fii si réewu Sénégal militaire français yi fi nekk seen lim toll si ñeenti téeméer ak juróom fukk yëfi daañu ko wàññi ba mu toll si téeméer côte sa Tchad ñu toll si junni yëfi dina wàcc ba si ñetti téeméer sa Gabon ñu toll si ñetti téeméer ak juróom fukk daanañ leen wàññi ba ñu toll si téeméer sa Côte d'Ivoire lim ba nekk si juróom benn téeméer dana wàññeeku ba si téeméer bu ñu sukkandiku ci xibaar yi tukkee ci Élysée réew France li mu jublu ci wàññi li mu militaire am yi ci dendu Afrique du leneen lu dul fexe rek bandi ay joyanti ci li nga xam ne moo ko lëkkaleek dendu Afrique ñeel wàllu défense juróom-benn téeméeri militaire yi ñu dañu leen di bàyyi ci continent bi lim googee nag mën na yokk wala wàññeeku lépp rek dafay aaju ci bëgg-bëggu réewi Afrique bu buñ sukkandikoo ba tey ci Élysée lëkkaloo gi kay léegi day am cote ci wàllu formation maanaam tàggat militaire africain yi seen xam-xam dong lu ñu bëgg léegi di séddoo ak ñoom lu ni mel nag dafay firndee rek ni bedd gi yenn doomu Afrique yi dibe di réewu France yëfi tàmbalee sax di law si Afrique yi wërngal këpp loole moo waral réew France jël dogal di teggi tànkam nànk-nànk si mbiri Afrique yëfi nag moom ngi commencé bi militaires yi jëlee nguur gi sa réewu Mali Burkina Faso ak Niger ñoom ñooy njëkk wan gannaaw réewu France ba noppi jox bopp Moscou réewu Russie si lu soxal nag réewu Sénégal jàppaleen ni nguur gu yees gi ba ñu ko tabbee ba léegi bokk na si li muy fësal saay su ne mooy rek yéeneem fexe ba réewu Sénégal moom boppam si fànn yépp waaye su ñoo wax ni dañuy génne militaire français yi si biir réew mi. njiitu ba si Diomaye Faye war a tase ni niki suba ak naataangoom bii di Emmanuel Macron sa Élysée lu ni mel nag ñeel forum mondial bi fa Gavi di amal ñu war a waxtaanee wàllu ñaq di vaccin mbirum militaire français yooyee. fii si réewu Sénégal du ñàkk dina bokk si ponk yi nga xam ne ñaari kilifay réew yi dinañ ko waxtaanee ci seen ndaje googee. alam gu ñu saytuwut ak itam ñàkkum kaaraange dañu yóbbu ci diwaanu jaareem ah, ca ah, Medinatul foofee di gox goo xam ne ni ay jafe yu mag lañuy ñuy dund ci ñaari yooyee. ca Medinatu rawatina gox bi ñu duppee xuuru euh, ngañaan foofee nag dañu ko daal di soppi rek def ko mbalit loole nag jural euh, jafe-jafe askan wa fa yeewoo dañuy dem ca euh, Diourbel fekk fa suñu ndaw lañ fa teewal di Abdoulaye Faye pour nga ñaan mu fare ci quartier Médinatoul nekk na bërëb boo xam ne véritable bombe écologique la zone bi lu ëpp fanweeri at ci ginnaaw nekkoon na bërëb boo xam ne bërëb bu mucc ayib la woon ak naataange bi nga xam ne moo fa nekkoon ci jamono yooyu mais ca jamonoy sécheresse ba tey bile bërëb nekk na jamono ji dépotoir d'ordures te kii itam ñàkk kaaraange bi bi gën law ci bi la bërëb ñi nga xam ne nag ñooy askan wi ñu ngi joytu lu ni mel fii tey ñu nekk tey mu mel nii ñu ciy jéem pexe ay fanweeri at ci gannaaw nekkoon na fi lu naat booba garabu lu ne amoon na léegi nag dem nañ ba loola gañ fi ñu mu lii fi sax tey jëriñu ñu dara ndax fi ne sunu njaboot mënatuñoo dem mënatuñoo dikk ñun waa njaareem sonn nan ñun waa njaareem am nan métit woo xamante ni bii ci sunu fii basin lan nu fi defal lépp a ngi ci biir sunu mbokk yi sunu xale yi dañuy tiit sax ñu wàcc mbartal ñii lii yàgg nañ ko tawat lool ndax ñun la yàlla natoo ñu dëkkee fii ci tës ci mbalit mi bu nawet jotee ñu sonn ah ndax lu ne leen tuy tuub ci ngir xeex ni di ñàkk kaaraange bi ak tilim tilim bi nga xam ne moom moo am foofee ca xur ñaan ay ndaw ak i jigéen ñoom ñu daal di regroupé wu ci ab kuréel ngir aménager ak itam set setal bi la bërëb suñu mébét fii ci xur yi mooy insécurité bu doy waar daf fee am insécurité boobu fi am nag waral na àndandoo ko ak saxayaay bi nga xamante ne ni actuellement nii moom nga fiy gis toll woon na ci dayo foo xamante ne nii àndandoo ak ñoom dëkk bi daf doon xaw a jafe lool. au-delà action yi nga xam ne état du Sénégal mi koy def yi nga xam ne nag moom mooy engagement citoyen yi dañ ko daal di convoqué ngir mën a amal ngir xeex tilim tilim ji ak ñàkk kaaraange am état bu fa nekkal askan wi dana def kéemtulaay kantanam ci satisfaire askanam waaye li nga xamante ne nii tamit moom moo mën a jàppale askan wi toujours mooy li nga xamante ne nii moom la askan wi di jëngul seen bopp dimbale ci président bi ci liggéeyam ndax dana tax dëkk boobu mu jiite mu mën a jëm ci kanam. ngir nag indi ay saafara ci li ni mel ñu jëwriñ ñu dénk wàllu urbanisme collectivité territoriale ak aménagement des territoires di Moussa Balla Fofana daal jëloon na ab nag engagement ci journée de lancement seetal sunu réew bi ñu doon amal dana def site bii di Xuru Ngañaan benn ci ay priorité del si ndakaaru addu ci wàllum koom tax na ba artisan ya génn ci ay commerçant lëkkaloo ci ab kuréel goo xam ne daal am na sàkkuteef yi nga xam ne jëbal nañ ko nguur gi ngir rek mu daal leen cay jàppale bu ko defee ñu dimbali bu baax a baax ni du doole yi ngir nag ñu tàbbi ci lu ni mel faaw nag ñu sukkandiku ci lépp loo xam ne dafay jur koom-koom ci réew mi ba tax na nag faw wàllum xëy ñu gën ci defi euh, jéego ñu ànd ceeg Bakary Cissé si de plateforme et commerçants du Sénégal di apprécier réduction denrées de première nécessité lu mel ni ceeb suukar diwlin ak ciment parc nag di interroger wu lu jëm ci wàllu qualité yooyu le produits. Euh, commencé nañu wàññi ñu ngi rafetlu wàññ bi mais man wàññi bi li nga xamante ne moom laa ci am comme appréciation mooy li nga maîtriser euh, mu mel ni ceeb mu mel ni diwlin mu mel ni yeneen denrées de première consommation yi. bu fekkee ne danga ko bëgg wàññi te maanaam dépendrul totalement ci yow ndax du nekkul loo xam ne da koy bàyyi ci réew mi nekkul loo xam ne da nga koy produire fii donc marge de manœuvre bi ngay am bu boobaa bu néew lay nekk xëy na loolu moo justifié ñii ne liñ ci wàññi bari na ñii ne liñ ci wàññi bariwul mais. wàññi njëg yi lu baax la waaye améliorer pouvoir d'achat askan wi loolu tamit lu gën la. ma gënal dëgg dëgg dëgg ci wàññi. mooy nga fexe nit ñi seen pouvoir d'achat mun a yokku ndax pouvoir d'achat mun a yokku mooy nit ñi am ay liggéey ndax da ngay dugg ci benn famille nos famille sénégalaises macha allah elles sont nombreuses boo duggee ci benn kër da ngay gis ne benn nit mooy jël en charge toute la famille. parc di invité état bi mu gën a yaatal réduction ci yeneen denrées. BTP déedéet. yàlla bois te bois bi ñun ñi nga xam ne am nañ ci xam-xam principalement artisan yi war nañ nañ ci wax ba seet ni ñu ko wàññi te bois bi mën nañ ko wàññi ni ñu koy wàññee mooy ñi nga xamante ne ñoo yor monopole bi ñu contrôler leen organiser leen ba nga xamante ne bu ñu du du ñoom prix yi ñu indi rek ñun ñu mën ko jënd. ndax wàññi njëg yi dana nekk lu yàgg lool li ci kanam rawul gët. benn fan ci weeru sulet sam ndogal ci bokk na ci eh, teg. taxe ci yëngu-yëngu yi nga xam ne dañ ko amal ci boobu leen nag jàppaleen ne jëwriñ mu ñu dénk wàllu koom gi ko jël euh, la mu namm rek mooy fexe ba euh, lempo yi ñuy euh, jot mu gën a yokk ngir mën a gën a doxal yenn politique publique ya nga xam ne moom la ñu am ci réew mi ci jamono jo nga xam ne daanaka ca sax nag la régime bu yees bi mooy ngir gën a doxal yi fii ñu ànd ceeg Awa Diallo kilifa yu yees yi ñu ngi wéyal pexe yi ngir mën a fexe ba keesu trésor public am xaalis ci noonee ñu dal di amal jéego yu am solo bokk na ci wàññi train de vie bu nguur gi amal recouvrement fiscal dal di taxawal tamit ay taxes yu yees régime bi daal bàyyiwuñu dara ay groupe de presse ñu dal di bloqué seeni compte ndax ne fayuñu seeni dette ci fisc ba ginnaaw secteur des médias boobee wàllu numérique bi ñoom itam dañuy ñëw fay direction générale bi ëmb impôt ak domaine yi dina amal ab TVA di taxe ci valeur ajoutée ci yëngu-yëngu ñeel wàllu numérique bi loolee dinañu ko jëmmal ci benn fan ci weeru sulet bi ñu jëm dinañu ca bokk ñu nga xam ne dañuy jaay bien ak service jaarale ko ci ay réseau informatique wala électronique wala ay plateforme yoo xam ne dañu fay amal ay transaction dox ci diggante fournisseur ak client nga dal di télécharger wala nga fësal musique film wala ay faux en ligne dal di tamit mën a denc ak di mën a traiter ay données jaarale ko ci cloud ak nu ñuy yoree lii di base de données loolee yëpp dafay am TVA waaye tamit jàng ak njàngale mi ñuy amalee en ligne moo xam formation à distance wala sax wala sax nga amal hébergement yoo xam ne contenu bi dañu koy def en ligne moo xam site web ay image wala sax ay text boobu les mesures nga xam ne jëriñ bi ñu dénk wàllu gaf ak réew mi moom moo ko bëgg a amal bàyyiwul fournisseurs yi bàyyeekoo biti réew wala ay plateforme yu nu mel note administrative bi di ci yokku ne tax bu yees boobee dañu koy dal di eh, tënk ci koppar yi nga xam ne plateforme bi da koy am maanaam chiffre d'affaires am TVA boobee nag ci Sénégal ci téeméer boo jël yegg na ci fukk ak juróom ñett yi waaye secteur muy hôtellerie ak restauration ñoom dañu leen ko wàññil ci téeméer boo jël fukk yi rek la ñuy joxe lu ni ba mbas mi Covid 19 dooree ba tey jii. fitna ga juddu ca Medina Gounass tax na ba ni ki dem ba jërë bu ñu dénk biir réew Jean Baptiste Tine daa dafay dem sakku nag ak dal ginnaaw ba mu seqee waxtaan ak xalif général ba. moom général Jean-Baptiste Tine nag li mu bëgg mooy ñu teg lépp ci suuf su ko defee euh, bërëb ba dellusiwaat ci dal ga ñu ko euh, xamee woon nee na nag faaw li ñu jot a euh, dund ci dal yëpp ñu fexe rek ba ñu daldi ci wéy ñu teewlu ay kàddoom. Ah, pour faire suite aux troubles. dañu fi ñëwoon rek ngir euh, xool dëkk bi naka la toogee ginnaaw euh, fitna gi nga xam ne jot na fee yëngu loolu nag waral na rek benn doomu aadama ñàkk ci bakkanam ñeneen ñu jëlee ci ay gaañu gaañu li ñu mën a def rek moom mooy di jaale suñu mbokk moomu suuf sedd ci kawam. Nous inclinons la mémoire de de notre concitoyen décédé et ci jëlee ay gaañu gaañu yàlla yëkkati leen ñu génn ci bërëbu fajukaay yi. sortie d'hôpital. j'ai ginnaaw bu ma fi ñëwee nag jot naa rek sekk waxtaan ak ñaari kilifa diine yi fi nekk waxtaan ak ñoom bu baax ci seen nekkin waaye tamit ci dëkk bi di leen woo rek ñu daal di ànd ak dàll ànd ak jàmm ndax loolu lañu xam. na ku nekk xam li la war laata nag ñoo ubbi ab ngir xool ala rek lan moo ci nekk dëggantaan laata ñu ciy jël yeneen ci ay dogal ñu xaarandi rek ba xam. xibaaru bi ci réew yi ci tënk itam dañu yóbbu ca Burkina Faso foofee ab congu moo fa daal di am ca Mansilla ci fukk fan ak benn ci weeru juin waaye ñu génn jur nag ay jafe-jafe ndax lu toll ci téeméer ci ay soldaar daanañ leen di boom ba ñu daanu lu ëpp itam ca ñoom daan leen teg loxo. ba ñu jugee ca fitna guni mel ca la nemmeeku nag teewaayu ay soldats yu bàyyeekoo Mali naka noonu ay mercenaires yu bàyyeekoo Russie bokk ci groupe bi ñu duppee Wagner foofee ca waga dugg te ba léegi kenn yeyul yàbbi ci teewaayu yooyule militaire lu jugee nag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi. ci diwaanu Tchad foofee ak lakk gu métti moo daal di dal ak makkaan xam ne nii militaire daanaka ñu moom ca biir defoon seen lu bëri nag ci ay euh, daanaka sox la daal di euh, nemmeeku ci ay lu sorewul benn yoon li nga xam ne moom mooy euh, dépôt bi nee nañu nag ci ab communiqué boo xam ne daal nañ koy fësal lakk-lakk gi dafa tàmbale daanaka foofee. mu am nag ay euh, nit yu ñàkk seen bakkan waaye itam ñu bëri daal di ci jële ay gaañu gaañu. tàggat yaram taxaw ci euro 2024 jàppale na nag euh, daan nañu tàbbi ci ñaareelu bëccëg gi ñeel phase de groupe bi programme bi nag moom lu mu tëddee ñett la ci jamono ji daanaka jàppale ne Croatie ak Albanie ñoo noonu daal di feggoo ci groupe B. mu ñu toll woon nag ci benn ball euh, ci euh, dara jamono ji ba léegi match bi euh, di wéy Croatie nag dugaloon benn ci dara jamono ji nga xam ne. Euh, ñu ngi àddu ngeen di teewlu match bi di continuer 16h bu jotee nag euh, réew mi dalal euh, jongante yi di Allemagne dina fas yéene laale ak Hongrie boobu lay jongante nag faaw mu jëlee ci ndam su bëggee wéyal li nga xam ne moom mooy compétition bi groupe beneen groupe itam bu 19h jotee Écosse dina laale ak Suisse foofee nag enjeu bi moom mooy Suisse amul droit am défaite ci ndam match boobu yi nga xam ne moom lay jongante. jàll ci ponk bu mujj yi dañu tey ne kaay ànd ca daleen ak jàmm xeex ya am ci Médina Gounass màggalu tabaski bi ak voyage bu njëkk président Bassirou Diomaye Faye ci France loolee moo li gën a fës ci yéenekaay yi tey jii altine yemoo fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ginnaaw ba ñu jullee tabaski bi fukki waxtu ak benn jote ab xeex moo juddu ci diggante taalibe wu Thierno Amadou Tidiane Ba di xalif général bu Médina Gounass ak taalibe wu Thierno Mounirou Baldé di xalifu médinatul Ouda beneen tur bi ñuy dàkkantalee Médina Gounass lu ko jiitu ñaari nit lañu waxoon ne ñoo ñàkk seen bàkkan waaye bataaxal bi bàyyeekoo ci ñooñu Thierno Amadou Tidiane Ba ne benn nit rek moo ci ñàkk bakkanam buñ sukkandikoo ci yéenekaay bii di bés bi bokk ak moom gis-gis l'observateur di ci yokk ne nekkinu ñaari askan yooyee dafa metti loolu ndax nag lu ni mel ni ñu ko nemmeekoo niki altine bi amoon na ci jamonoy ba bésub tabaski dañoo yàqoon cortège Thierno Amadou Tidiane Ba yéenekaay bi bàyyee ko ci immeuble Elimando di ci yokku ne lu ni mel lu yàgg la ndax nag mu ngi dooree ca ba ñu tabee kii di Thierno Mouhamadou Seydou Ba ak bañ bi nga xam ne xalifa nga Ngabouke wala bu Fulaadu du Thierno du Séykou Balde ne moom du nangu autorité wu ki nga xam ne moom moo soxee lii di daaka bi benn nit ku ñàkk bakkanam lu toll ci fanweer ñu am si ay gaañu gaañu ay kër ak ay magasin yu ñu taal loolee mooy bilan wu yile bu buñ sukkandikoo ci laas mu nga xam ne jàpp ne ne tabaski bi jàmm amul woon ca Gunaas moom muy xamle ne jëriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi di Jean Baptiste tin demoon na fa dox fa tànk jàmm moom général Jean Baptiste Tine niki talaata ji la fa dem ci boobule cité religieuse foofee nga xam ne waxtaan na ak sëriñu ñaari communauté yooyu. yéenekaay bi di Le Soleil moom tamit dal di fësal naataalu jëwriñ bi di xamle ne moom joriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi woote na ñu ànd ak dal. Sud Quotidien moom dal di dikk ci message bi nga xam ne njiitum réew mi Bassirou Diomaye Faye yëkkati na ko ba ñuy màggal tabaski bi moom président Diomaye Faye dal dinay amal julli ay el Kabiram bu njëkk ca grande mosquée bu Dakar dal dina ci eh, def ab prox ndoll nag ngir dikk ci bilan ginnaaw ñetti weer ci boppu nguur gi dal di nag rafetlu dal gi ñu seetlu ak jàmm ji am fii ci réew mi di sàkk ñu gën koo wëyal waaye tamit di fàttali ne jaloo lu munta ñàkk la ak ay coppite ngir fexe ba nekkinu askan wi gën a ñoŋ buñ sukkandikoo ci Sud Quotidien voyage bu njëkk ñeel président Bassirou Diomaye fay ca France niki talaata ji buñ sukkandikoo ci wal Walf Quotidien di xamle ne moom njiitum réew mi dina amal boobule visite officielle bu njëkk xam ne ko def Afrique ndax bi la yoon France la jëm bu ñu sukkandikoo ci benn bataaxal moom Bassirou ay Faye naataangoom bu réewu France moo ko invité. libération moom ñëw ci leneen mooy ubbitewu procédure judiciaire ginnaaw bu ñu déposé ab plainte ngir salfaañi àlalu askan wi ndax lu ëpp juróom benn junni ak ñeenti téeméeri milliards ci suñuy koppar la ñuy lëñbët ca port autonome bu Ndakaaru li leen jaajëfal kenn dalug jàmm jërëjëf Awa Diallo di la ko ñaanal itam mbokki jaare fi buur jotaay yu xibaar yi jaajëf leen bu baax ci teewlu bi ànd beeg 7TV amoon mbégte janoo ci ak jox Cissé mbégte bu ñu partagé la Suzanne ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal mbokk yi ñu doon teewlu xibaar yi ci tënk ci kàllaama nasaraan ak wolof di ngeen ci feggoo ak Germaine Diouf jaa ngeen jëf